na bu ne Amaros daa suñu càmmoñ. ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu. wala xale mi ngi sax mu seex gum seex. am fas gumu seex moom. mu ngi leewtoo mi ngi seex loolu di bëre ndax wóor waaw waaw xel na ko. ah do do do do ñëpp de. loolu lépp si lay doon. mi ngi leewtoo. infrarouge. ndeysaan. Willy Samueletto loolu am na solo Alaaji Malick le grand footballeur l'international camerounais est au fils que nous saluons vous avez un homonyme ici il n'est pas footballeur mais il est lutteur est au fils un flac rouge un flac rouge ak Eto waaw dernier toog ci ay tànkam mooy drapeau sëñ Sangi Ndiaye ba léegi laalante wuñu e Frarouche ak Géejawaay et Tafouis Birama Rasta drapo Sëñ Sang Ndiaye arbitre woon arbitre wax na ñoom ma ngay wax ak ñoom arbitre siflé waat na Alaaji Malick arbitre waat na ñu diggante danoo sore yoo Ito Ciss et Frarouche ñu ngay lewtoo ba léegi dañoo sorante dañoo sore wala ji maane ndeysaan waaye éclairage yooyu sàdd bi war nañ ko xoolal waaw waaw leerul leerul c'est mal éclairé waaw waaw lii dugg cee sàdd bi war nañ cee mën a defar lamp yi bur leen dëgg la dëgg la wala ji maane ñu ngi lewtoo ñu lewtoo ñoom ñaar ndeysaan lépp la dem lëntoo waaye dara lu am solo amagul te fils ay Fra Rouge avertissement dina ci am dañoo taxaw di lëntoo waaw waaw arbitre woon na leen avertissement nee na ko dindi li nga sex jaaxaloon na ma lool xel nangu ko lool xel nangu ko ay Fra Rouge et ndeysaan ndeysaan ito wàcc na ito na mépp waaye demul waaye nii mu déree du du du leyaatoo ku nar a song kuy song say tànk du du soree noonu waaw du soree noonu Alaaji ay caay caay caay suñu xel dem ci ipongaar yi ndeysaan waaw moom naa ne borom ay caay caay ca waaye Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi El Hadj Malick. Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. ndeysaan hospitalisé. ñu koy ñaanal yàlla ko. amiin ku ko bëgg a seeti. ndeysaan ma nga hôpital Aristide Dantec. dëgg la. ca Dermato. ndeysaan. ñaari waaye Kaaro Yàlla. combat bi neexagul. cey du ay kati. man su ko xëyee laa xal la. loolu am na solo Alaaji Maalik. ñu ngi lay toog. cey. la Alaaji Maalik. ak a mën a way. ay waay ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan. ah doo na dajale diw mel ni cong la nar a door waaw waaw bundal na ko daf baaru tan na ko jël bu rëy waa inna infra rouge sa xere jël ko ndal ak moom rayon infra rouge do sa xere jël ko ndal ak moom pour ko lool la na ko jël bu rëy mbër gi ca loxo yi la si bépp ci loxo yi la da ko sa xere de rotation infra rouge tan na ko jël bu rëy alaaji ba allahu akbar anwaruna lamb tey jëli fam awai jëli bi day naan chef d'œuvre Ibrahima Cheikh Dieng ñoo ko def rotation rek tuur ko. c'est propre. Abbas ñu félicité la.